xam-xam a tax foofu la solom tàmbulee sunu borom bi muy sant malaaka yi ñuy sujootal aadam fekk na la ko jiitu woon mu wax ne wa allama aadama kullaha mel na ne xam-xam tax na sunu borom yéegi ko ba sant malaaka yi ñu wormaal ko di ko sujootal foofa lañ jariñam tàmbulee nit bala ñu koo tudde nit ak xam day ne ci moom adduna it li fi nekk ci njariñ lu mu bari bari ak xam mooy tax nit ñi mën koo jariñoo sunu borom ma fi wàcce xéewal yi waaye nag lënkale ko nit ñi dem war koo wuti ngir mën koo jariñoo xam-xam nag mooy tax ñu jot ci xéewal yi te sunu borom ci maandoom tax na xam-xam lënkaliwu ko sax ak ngëm maanaam xam-xam boo ko xamee rek njariñam nga jot moo tax ngeen gis ñi gëwul yàlla sax te yittewoo xam-xam ba am ci ab cër àdduna ñu doyal ko sëkk ba lu ci am njariñ tey ñoo ko moom misaal bu ndaw laa ci bëgg a joxe dangay dëgg Sénégal ñu ne am nañ pétrole bari ak gaz bu fi génn waaye dañuy wax ne buñ ko génnee di ko liggéey Sénégal 10 pour cent la ci am li ci des lépp ñi am xam-xam ba mën koo génne ñoo ci jot loolu mooy njariñul xam-xam maanaam loo mën a amit lu mu bari bari boo amul xam-xam doo ko jariñoo nam waree loola tax ci lislaam xam-xam jiitu lépp lépp lépp xam-xam ci jiitu sunu borom ba muy wàcc alquran ci yonentu yàlla muhammad aaya bi ci njëkk a wàcc mooy baatub iqra iqra mooy demal nga jàng yi loolu liñ ci war a dégg ñun xeetu yonentu yàlla muhammad mooy xeetu ñu sant jàng la kon xam-xam moo jiitu ci sunu sunuy ndigal lu ca tege door ca tege ndax dañuy jaamuloo yàlla te yàlla mi mi jaamuloo néewut day tere ñu di ko làmbut daa bëgg liñ koy defal ñu xam ko moo tax mu tànn ay yonent wàcc leen waaye jox leen ay téere sunu yonent bi ci mujjoon te gën ci ba ko yàlla di waxam ak moom jàngil la ko njëkk a wax kon loolu ci biir alxuraan su borom soññee ci ak xam-xam wax yonent bi alayhi salaam ne ko waxul rabbi zidni ilma waxal yow ne yàlla yàlla nag ma yokk xam-xam kon mooy koom moo xam ne kenn du ko doyal waxtu wu nit ki da koy sàkku waaye waxtu wu day war a yokk waaye képp ku yàlla sol xam-xam it mënatoo yam ak ki mu xamul kon hal yastawi alladina yaalamuuna walladina laa yaalamuun su borom ma xam ak ñi xamul duñu yem bu àdduna yàqoo ba nit ñi di leen jaawale xamewuñ leen it su borom moom du yamale ñu xam ak ñu xamul adduna ji it ñun ñëpp xam nañ ne ñi xam ak ñi xamul yemul tey li ëpp ci njariñ yi adduna ne ci suuf si mbaa ne ci jaww ji tubaab yi yàlla jox ñu yitte woo xam-xam ba am ko tey ñoo ko yilif di ci jëmale nit di fa leen neex tey lu waaye di jariñoo rek soxla nga ñooñu ndax xam-xam buñ liggéey ba tey mën a dund te àndoo ñëw mboolem jumtuwaay yi jëfandikoo du ay xar baax du dara xam-xam buñ sonn ba am ko la ci lañ mën a exploité ba génne ko jariñ ñu ci di ci noggatu nit ñi ba tey jii kenn mënta dundal dara wala nga doxal dara te ñoom am ci loo bañ bay da nga jariñoo seen i jumtuwaay yoo xam ne ñoom ñoo ko defar te bañ koy defar seen bopp taxoon waaye ñoom la yàlla ñoo def ci xam-xam ba am kon loolu dañuy wan ne solo si mu am foo ko takk weesu na loolu nag Serigne Touba mi nga xam ne tey moo ñëw am ndigalul suñu boromam ndigal boromam woote xam-xam la woote woon xëy na lim doon lim fi fekk mu xaw a dëng mu doon ko jubbanti mooy nit ñi yem ci xam-xam. waaye moom dafa ñëw woote xam-xam bu ànd ak ñu di ko jëfe woote xam-xam bu ànd ak ñu bañ na ko ba jumtuwaay yi mu doon jëfandikoo ngir tasaare njàng leen ne woote bi al naa naafi' moo ci jiitu xam-xam bu am njëriñ mooy tax nit am njëriñ mooy tax julit mën a nekk ab julit bu ñu nangu ak julitam xam-xam bu am njariñ mooy tax nit mën a jariñoo li yàlla yi nekk ci kaw suuf kon lépp lu ñuy wax ci àddina tey mën nañ ñaa xam-xame ko des ginnaaw ku ko amut ngir leeral ak am solo xam-xam rek doy na mbir mu ne boo xamee ab safaana mën na laa xamal xiima safaanu xam-xam mooy réer réer nag mooy ndey bon bon yëpp ñu wax ne al jahlu ummu radal yu bon yëpp réer mooy seen ndey loolu day wane solo si xam-xam am euh, kuñ ne ab jaahil nga nga mer donte moom nga kon melokaan la woo xam ne baaxut kenn bëggu ne mel amul njëriñ la kon xam-xam moo cay génne nit nag kon war nañoo jàng te loolu la sëriñ bi bëggoon moom la santoon taaliba yi kunu maan fil ilmi li wajhi man bihi yuqimu diina yéen ñëpp dem leen ngeen jàngale waxoon bëgg leen xam-xam mi nga xam ne bu diine taxawee xam-xam ko taxawoon yéen ñëpp góor ñi jigéen ñi mag ñi ndaw kon sëriñ bi woote woon na tas taxawal daaray xam-xam sant ñëpp ñu jàng sonn ci jàng lool jàngulu taxawal ay daara taxawal ba ca bu def ko ba diir bu gàtt tàggat na fi ay nit ñoo xam ne ci xam-xam géew buñ dem yilif ko xam-xam bu barkeel xam-xam bu leer bu yaatuwaay lépp am njariñ wooteem bi ci xam-xam la ko taxawal kon képp ku leen di woyofalal xam-xam rek jàpp leen ne waxu leen waxi sëriñ wa man nahakum an taallumi fa nahyuhu ila dalal yantami moo ko waxoon wa man nahakum an taallumi fa huwa xalifatu laani almujrimi fi kulli ma yufsiduhu wallahu jal xasibuhu yowma aljazai wal wajal wa man nahakum an taallumi fa innahu yaqudukum lin niqami kon yàgg naa wax xaj ji nit ñi bañ koy tere xam-xam xam-xam ay façon yu bari la bokk yi du rek xam-xam baaxut bu leen jàng waaye gàllankoor ku toll ci war a xam nga fexe ba xamut kooku tere xam-xam la ndaw ñu bari tey sëriñ bi wax nañu daana wax ne ku toll ci waxtu alxuraan ñu sàggan rek ba wattuwul amul ci kaw suuf la ko jar te ñu bari tey buñ leen taxawoon tuuti danañ waxtu alxuraan jàng ba xam diine xam-xam yi àdduna yëpp ñu xam ko si xam-xam nag diine da cee jiitu waaye du xam-xamu diine rek waaye xam-xamu diine nag la jullit war jiital sëriñ bi jàngaloon nañu ko fa xaddimu la qaida sunniya mujarradatin an firarumaria nañ jàng diine ba xam ko ba kenn ku nekk ñun mën a xam li dox diggam ak borom mën koo jox waaye jàng adduna nag wa kulli ilmin bi manaafi'a fi la ci weneen bayit bépp xam boo xam dana andi ay njariñ man si la ko jàng euh, toolu xam-xam boobu sëriñ nag bàyyi fi ay téere yu dul jeex santoon taalibe yi na ngeen jàngi rawatina jàng seen i farata nee naa murid yu góor yi ak yu jigéen di digal naa leen ngeen jàng pas-pas jàng laab jàng fi xam-xam yi ngeen war a xam yëpp ngeen jàngi ko ne gàddul naa leen ay taalif yoo xam ne lépp dana ci nekk loolu nag mooy lii lim fi bàyyi woon ci la yar ak njabootam yar ci taalibe yi taxawal ci ay daara ba dëkk bu tedd bi ñu nekk tey Touba xéewal gi di fi wàcc nañu bàyyi xel nañu fàttaliku ne daara la fi sëñ bi sampoon waj'alhu da'ban maskana ta'allumi wa mawdi'al fikrati wa tafahumi daara la fa sampoon bëgg mu des di daara ñaan yàlla it mu des di daara kon gu fi nekk war ngaa bàyyi xel daara ci sa njaboot nga jàngal leen yar leen fexe ba ñu xam kon ñoo xam-xam-xam yi am njariñ yépp ñu fexe ba xam ko jàngal góor ñi ak jigéen ñi nag Sëriñ Tuuba bokk na ci jubbanti yi njuumte yi fekkoon ñàkkal gu ñàkkaloon solo njàngum jigéen mu ñëw jox ko yi te ba tey soxna Faati Ja Eh, ñaanal di ko màggal radiyallahu taala anha royukaay la woon ci xam-xam ni mu ko nekk woon ci diine ci njub ak mën a yare loolu de nañ bàyyi xel ne ndoro la fi des la lu war a sàmm ñun ñëpp am nañ masuuliye bu mag ci sàmm ko fexe ba njaboot bi jàng ndorool li fi sëriñ bàyyi te wax na bu leer naññ ne moom ne bi xidmatil kitaabi wal xadiisi yathbutu laa bi dahabi mawruufi sama ndono li koy téye mooy xidmatul kitaab wal xadiis mooy liggéeyal diine xam-xam nag moo jiitu ci lu ñu liggéeyal diine waxoon nañu ne inna kanzal kitaabu wal xadiis wal adab laa jamoo fiddati wala jamoo zahab sama koom li may ndamoo di ko denc muy alal mooy xam-xam loolu la njaboot gi xamoon ba la tàmbale ci sëñ Mouhamadou Moustapha la àngu programme bu mat la boo xam ne incha allahu taala dongo buñ ci jaar la ba génn la aalim ngay doon rabbani borom xam-xam boo xam ne nitu yàlla ngay doon. bokk ci ñi am mën a am cër ci yàlla ndax say jëf ak saw melaw incha allah taala daara ji loolu la fas yéene wundu daara jooju ne la sëñ di woote kon ñëpp war nañ cee jàpp jàpp dina mi ngi tàmbalee ci xéeri njaboot gi ci xam-xam maa ngi jégul di baal wax wasalaamaaleykum wa rahmatullah fustum bi sa'yin di jamalin rijalan miswatan duna ixtilaati kama kaana al juduudu sa'aw qadima li islaahin wa tajdidi ribaati fa ahlan marhaban ahlan bi daarin lakum daarun tunaadi linxiraati tunaadi linxiraati ila silki lxadiimi abilmahaamid munajji suudi min darbi siyaati juziitum xayra maa yujzaa li abdin raa xaqa aluxuwati biftiraati ala almaxduumi walasxaabi dawma salaamaadil hidaayati lis siraati asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu jox sëriñ Abdou Ndiaye kenn la ci taalibe yi nga xam ne ñoo bokk ci kër gi bu ko defee mu yëkkati ñoom turu ñu yëkkati kàddu ci turu taalibe yi bu ko defee soññaat leen ci bis bi ndax ñu waajal ko bisu doomi sëñ Touba joo xamante ni ku am ngërëmam amoon nga ngërëmal sëñ Touba ku ñu ciy liggéeyloo wala ñu boole la ci sant yàlla nga war a dem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 rabbi a'uuzu bika min hamazaati sayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yahduruun asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi nuyu kilifa yi teew yëpp di leen ziyaara bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké yàlla suñu borom yàggal ko fi lool te may ko wér ba li mu yéene liggéey Serigne Touba mu àggale ko sagom dañ ànd koog moom di yeesalaat sunu taalibe di fàttali suñuy laxasaay di yëkkati ay baati soññee yu gàtt gàtt rek ci ñi ñu war a soññ mu di sama mbokki taalibe yi nga xam ni ñooy taalibe yi aju ci kër gi ñuy soññ suñu bopp di leen soññ ci ak farlu ak góor góorgóorlu ci taxawu ci liggéeyu kër gi ñu ngi ciy soññ suñu bopp bu baax di ci soññ mbokki taalibe yépp ah di wax ni nañ góorgóorlu ci farlu ci lu jëm ci liggéeyub sëriñ bi ndax sëriñ Tuubaa kenn defalu ko dara ku def sa bopp nga jëfal ah damay jégglu ñu ngi ñaanal tamit Cheikh Mouhamadul Amin Baara mi nga xam ni moo toogee woon toogaayu kër Soxna Faati Dia te mu wàccub liggéey ci fan yi ci ginnaaw ak sëriñ Abdul Ahad Mbakke moom Cheikh Basiru Moor ñu ngi leen di ñaanal yàlla suñu boroom. yeesal yërmandeem dolli leen xewal bu baax a baax yal leen seen maam teeru teral leen bi jaay Seydina Muhammad mbokki taalibe yi dañ may wax ni nañu góorgóorlu ci li nga xam ni ah ñun taalibe yi dañ koo sasoo di ko jaayante di ko def ci bisub soxna Faty Dia bii dañuy wax ni kat liñ ciy laaj néew na lool kon nag képp koo xam ne nii aju nga ci kër gi dañoo bëgg balaa bis bee jub seeti bañ ciy defu soññee ñëpp góorgóorlu ba bay seenu sas ndax sas wi aw dooñ la rek du aw sas kon nañ ci góorgóorlu gën cee def fulla te xam ni kat Serigne Touba kenn defalu ko dara lu waaye def sa bopp nga ko defal kon nañ ci doom góor góorlu bu baax a baax a baax ñu ngi nuyu ñëpp di ziaru ñëpp di yeesal sunu taalibe di ñaanal seex Serigne Khadim Mbacke mi nga xam ni moo toog toogaayu Soxna Faty Dia yàlla sunu borom sàmm ko te aar ko musal ko. ba mu yàgg jiite njaboot gi bi jaahi saydina muhammad barke xaadimu rasul wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu kàddu yi rafet na lool ñu ngi sant moom ci taalibe yi leen te Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbacke Fallou danaa lu ngeen fi gis taalibe yi lu ngeen fi gis rek taalibe yi la kon ñoom it yal na leen soxna si fayal boppam ci barkeb Serigne Touba kon dañuy jël kàddu gi jox ko Serigne Khadim Mbacke mu Serigne Abdoul Fatah Mbacke kàddu gi nga xam ne kàddu yi bàyyi ci buntu kër sëriñ Fali la jëm ci kër soxna Fat Ja Mbàkke bu ko defee ñu maase ñun ñëpp ñu déglu ko ndax ni ñu waxe waxtu wi leen bëgg rek ñu balaa timis jee dugg rek ñu daal di yëkkati jataay bi دليل أمر داك يصل في أبد خير أمر داك اللي في خمنا في فلو fallu Mbàkke xéewal war a lor ba du lor gaal gaa ngi nii te ku nekk ba kat yaay xale yëpp dugg ci gaalu sëriñ bi alaaji baara abdalala day laa mën a daa seex fallu fi abadin xari laa mën a daa tane sa xam nañu la yàlla xam nañu la ku sopp Sëriñ Fallu Mbàkke defoo li ñu mbàkke Sëriñ Fallu loo borom ko sa taw koo def lu yaay ko juboo waaw di waar ya seen mbooloo yoo xam nañu la dañu laa ci baara ku daa jaamu yàlla ngi yàlla ci baara Sëriñ Baara Fallu loo ku daa jokkum mbokk ngi ku sopp Sëriñ Baara Fallu defoo li ñu mbàkke Sëriñ Baara Sëriñ Baara bàyyi sa mu ko waa yàlla yàlla doon leeram addu Sëriñ Fallu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 sëriñ Xaadim sëriñ Ahmadou Badawiyu mi ngi lay nuyu di leen nuyoole njabootu boppam gi mu àndal ñu ràññee ci njaboot gi gannaaw bu mu fi fekkee kilifaam soxna maam Bousso moom Cheikh Mahmadul Fadil nga xam ne bi mu ñëwee kon délégation bi ñëw yëpp dañ ko fab teg ci loxoom mu eggale ko ci. rakki boppam yi mu fekk ci kër Serigne moor gi di ko soxna Faty Dia muy soxna jabaara mu Cheikh Mahdoul Basir ak soxna Mame Dieng Mbacke moom Serigne bu ñu fab nuyoo bi gën a sell Serigne Ahmadou jël ko teg ko ci sa loxo sëriñ Khadim ngir nga eggaleel ko ci njabootu soxna Faty Dia gépp góor ak jigéen mag ak ndaw Serigne Ahmadou mu ngi leen di nuyu di leen nuyoo lenn ci délégation bi mu àndal. ci njiitu délégation bi Serigne Saaleh moom Cheikh Mamadou Moustapha Fadil ak Serigne Baye Ndam moom soxna Mbeenum Cheikh Mamadou Fadil ak Serigne Moustapha Mbacke moom Cheikh Mamadou Basirou moom Cheikh Mamadou ak seen rak góor ak jigéen mag ak ndaw di leen nuyoolee ci jigéen ñi ñu àndal soxna Jëtu Mbacke ak rakki boppam yi soxna Mam Mbar ak njabootu Cheikh Mamadou Fadil gi ñu àndal yépp di leen jox nuyoo Cheikh Cheikh Baraka Cheikh Aboul Baraka. mi ngi nuyu njabootu Cheikh moom Cheikh Soxna Faati ja gépp di jiital ci nuyoo bi sëriñ Xaadim ak ñi bokkal kër gi yëpp di leen sant bu baax di leen gërëm waaye di sant bu baax di gërëmit it yi nga xamante ne bi ñoo taxawu liggéey Soxna Faati Dia bii ndax li ngeen def lu am solo la ndax day fàttali ñi xamoon waaye day xamal ñi nga xamante ne xamuñu woon ndax Soxna Faati moo magoon ci kër seex Maodo ci ci ci kër Cheikh Ahmadou Bamba waaye mageelam googee da koo jëmbi woon ak taalibe ba tax na ñi nga xamante ne bi ñoo toppoon ci ginnaawam képp ku fi nekkal sëriñ bi dawul def dara te te diisoowu ci ak yow dañoo wax ne bi ñu tàmbalee liggéeyu jumaa ji bëgg taxawu ñu fiy liggéey jaral na ko mu jóge ci njaareem ñëw toxu si Touba am na ñu wax ne sax am na benn bi Cheikh Modou Fadel daf ko doon tooñ ngir bëgg mu ñëw ba tax mu ne ko damaa amoon peppum saañoo moo xamante ne damaa bëggoon ñu toggal ma ko fii ci Touba ngir bëgg rek mu mën a ñëw Touba bu mën fee féete waaye soxna si ne ko Mbàkke ñëw naa na te li ma indi mooy taxawu ñiy liggéeyal Serigne Touba ci jumaam ji di togg di leen jox di togg di leen jox di togg di leen jox nit ñi di ko fekk si fii ci këram gii ba mujj mbooloo mu bari moomu tax mënutu fee nekk. mu mujjoon jox ay ndigal ay nit ñu dem ci sëñ Modou Mamoun ngir mu wutal ko kër ca Daaru Salaam ngir mu mën a xaw a toxu ba mën a sori nit ñi ngir mën a taxawu liggéeyub Sëriñ Tuubaa mu nekk foofee ca Daaru Salaam di togg di yët moo Modou Fadal ngir mu jox ko ñi nekk ci jumaa ji li ma ci gën a yéem mooy lu tax mu koy togg jox moo du Fadal di ko wan ne ko yaay buntu Sëriñ Tuubaa ci kaw suuf waaye bu ko neexoon daan togg di ko yóbbu ca jumaa ja direct ndax du ñàkk ko doon def sëriñ Amdi Kan mi ko daan mi ko doon yóbbu bi muy dugg ci bunt bi am na jëmm ju ko ju ko bëmëx ba ndogu lam doon yóbbul sëñ ba tuuru wax nañ ne sëñ bi keroog bëkk nag boobee da ko faa jële maa ngi jégalu bu baax ngeen sëñ sant busa bañ a wax dara sëriñ bi waaye fonk gum fon fonkoon soxna faati moo tax ba bëkk néeg ba bëmëxee soxam sëñ Amdi Kan ma ko doon andi mu tuuru turut kooka xam naa ko mën naa ko tudd mi ngi fi waaye euh, yoon dafa defut ma mën koo tudd waaye ngir fonk gum fonkoon soxna faati rek ba tax na ndogu li mu yónnee mu tuur ko mu ne kookee na daal di dem sàkk pexe dem dem waaw soxna maa soxna maa aw suñu bàjjan waaw waaw moom maa ngi koy euh, jox am nuyoo bu baax loolu la ma sëriñ bi di fàttali waaw ak sama bàjjan yi ngeen nekk ci kër gi yëpp ñi nga xam te ne bi sama xel dem na ci ñoom ak ñi nga xam ne sama xel dimu ci ñoom di leen fàttali ne xamal ne Cheikh Modou Fadal daana ko woo di yónnee oto mu di ko jëli muy muy fanaan nag moom nekk ak moom aaliya di waxtaan ci sëriñ Bamba bu guddi jot bu xëyee oto bi indiwaat ko daana ko def aaliya daana ko def ndindi daana ko def fii ci Touba kon ñoom ab ànd bu rafet lañu àndoon kon lu mel nii bu fekkente ne bii ñun suñu borom baax na ñun sëti Cheikh Ahmadou Fadal yi ñu xam kan mooy soxna Faty Dia wala boog ñu xam ci tuuti ba teeloon a jël ab cëram jox ko tey ñu dellu si waat cër boobu ci ko moo Ahmadou Fadal alhamdulilahi rabbil alamin ñoo ngi sant sëti Cheikh soxna soxna Faty yi nga xam te ne bi ñoo taxaw liggéey bi ba ba bu jëlaat bis bi andi ko Cheikh du Fadal ñoo ngi leen di ñaanal fi ñu bëgg egg ci tuddee njabootu Cheikh Maodo fa Cheikh Ahmadou Bamba gi ak euh, askanu maaram bi yëpp suñu borom taxawu leen bañ mën koo eggale. li ma bëgg wax daal mooy njabootu Cheikh Maodo Fadal bég nañ ci turandoo yi ñu ñu ñu tuddee ndax amuñu lu dul Cheikh Maodo Fadal amuñu lu dul soxna Fatija ngeen boole leen benn bis benn jotaay alhamdulilah rabbil alamin yàlla ngeen ko yàgg def te ñu yàgg koo ànd ak yéen di ñaanal ñi nga xam ne bii ñoom lañ teg liggéey bi seen loxo ñu gën ko jekk ci wàll yëpp ba gën ba ba gën cee dajee ngërëmul ñi nga xam te ñoom lañ koy defal ñu ne ñu ñaanal ñu suñu kilifay bopp yi ñu fi taxaw yi ñu fi yónni ñu taxaw ñu nekkal leen fi ñu ñaanal ñu ñu gën a mën a jekku seen i ndigal ba fuñ bëgg ñu egg fa ñu mën faa eggale seeni i taxawu leen ko ñu nu rafet nu nu gën a rafet nu nañ ko bëggee ndax euh, liggéeyal sëriñ bi rek moo fi nekk ñu bokk ci ñi nga xam te ñoo dajee ngërëmul sëriñ bi ñoo ngi jégalu bu baax ci kàddu yi nag ndax waxtu yi moo ko mayut asalaamaaleykum kaddu taalibe gi nga xam ne moo jóge kër sëñ Fallu ndax sëñ Fallu moom yaakaar naa ni ñëpp ñëpp commencé sopp ko te dara waralu ko lu lim defoon sëñ Touba rek lim defoon sëñ Touba moo tax ñëpp ñëpp ñëpp wëlbatiku sopp ko loolay tamit ñi ñëpp ñu ngi ko jàng ci soxna Fat Ja ndax soxna Fat Ja moo doonoon taawu sëriñ tuubaa sëriñ Touba ci boppam ñi sos yoonu murit mi ngi koy sos ci kanamu soxna Faati la te yaakaar naa ne umpaliwut yoon wi nekk na fi ba ci jamono sëñ Abdou Lahad moo tax ma ne ginnaaw soxna Faat ja lu ci waaye defaat ci yoon wi rek lu mu ci dolli la lu ci bokkut la te waykat ba nee na yëf yi fi Bamba bawoon kuy woote rax ca ca yëf ma bàyyi laag yooyu yëpp te yam ci yi fi Bamba bàyyi woon waaye yi fi soxna Faat ja bàyyi woon ku ci dolliwaat dara rek loolu xamal ne bokkut ci yoon wi kon karne dana wax ne ay kilifa yu bari ñu ànd ak ñu ngi fi muy soxna maam Boussa mi nga xam ne mooy kilifa jataay bi ak sëriñ Ahmadou Badiou ak sëriñ Baye Ndam Fall mi moom soxna Mbène ak sëriñ Fallu Mbàkke ñu gën koo xam sëriñ Galas Kaltoom ak sëriñ Saliou ak mboolem njaboot gi ñoom ñëpp lañ bëgg a wax rek ñëw nañ ba ci seeni doom ñoom ñëw nañ jigéen ñi tamit ñoom ñëpp ñu ngi nii toog soxna maam Mbara ngi nii waxoon naa léegi soxna maa awa borom daara ji ak soxna bintu moom sëriñ fan ñoom moom wax dëgg yàlla maa leen séddoo ndax dañoo séddoo alxuraan rek euh, bu ko defee ay royukaay lañ doon yàlla leen suñu borom def mag te def leen magi lislaam soxna may ka mi nii toog moom itamit ku xam kër sëriñ Fallu xam ne mu ci mel ak mboolem ñëpp soxna Faati nag wax nañ ne liggéeyu jumaa ji bi mu noppee ay takkaayam la doon dind ay ooram loolu jigéen ñi war nañ koo dégg jaay or yi ñu yore woon ñu def ko ci liggéeyub sëñ Muntaxa bi liggéey bi dafa itteel ci ñëpp te sëñ bu mag bi daana wax ne ñetti ñetti rëdd la rëddal nit fii la nekkoon lii la fi bàyyi fii lañ ko def ñett yooyu nag ku nekk dinañ la fii la nekkoon lii la fi def fii lañ ko def ku nekk nag na nga xool loo fiy def ak li nga fi defal ak li nga fi bàyyi kon dañuy jël kàddu gi jox ko ki nga xam ne moo di sëriñ Abo mii bu ko defee moom muy jottali kàddu njabootuk soxna Fat ja waaye bokk na ci royukaay yooyu daal soxna Fatou moom yaakaar naa ne ku jàng taarixam da ko bëgg bu doonut woon doomi sëñ Touba sax di ko bëgg ndax ni meloon bëggoon sëñ Touba baa jéggi dayoo meloon ci alalam ak lépp jamono yooyu yaakaar naa kuy jaay ooram di ko def ci liggéey bi ngir bëgg mu àgg. loolu man mosuma koo dégg ci taare soxna may Kubra mi mu yaroon am nañu wax ne bi mu fi jógee sëñ Fallu dafa wax la nekk ca wetu Seex Ibra lu fa nekk ca barab ba ñu ne ko dara nekku fa mu ne nan fa yóbbu soxna may Kubra ba Seex Ibra xam ne am na ko bëgge woon sëñ Touba ni moom tey doomam loolu nag ab leçon la boo xamante nii ñëpp a ko war a def xel comme dañuy màggalal soxna si waxtaan wi waroon màggal jëm foofu bu baax ñu xam ne doomi sëñ mooy diw leen a roy nit ku ko doon faaw nga roy aw meloom nag te aw meloom mooy bëgg sëñ Tuubaa ak liggéeyal ko kon ñu jox sëñ Abo kàddu gi ah seex a ngi nii de seet sa micro bi maa ngi tooñ maa ko yore woon ci suba ba léegi sëñ Saliou jëf ñang ñu ngi jéggulu bu baax ndax waxtu wi dab nañu waaye di nuyu du ba Badiou bu baax di la siyaare di siyaare sëñ Xaadim mi xalifam sëriñ soxna Fadja ak ay rakkam yëpp ñu ngi leen di siyaare xanaa di wax rek nii Euh, soxna Fat Ja moom doomi sëñ Tuubaa yëpp ko liggéeyal ñàkk a ci bisam wala ñàkk ñëw ci bisam wala ñàkk nekk dara ci mbiram sax dafa wóorul sëñ Mbàkke Abdu Rahmaan ndax sëriñ Tuubaa wax ci làmmiñam ni képp ku ko ñeewante mën ngay dimbali képp ku ko jàpp mën ngay dimbali soxna gàdd bu so bërki démb ca Ndakaaru moo ma wax ci làmmiñam ni ma soxna moom bi mu gënee àddina moom la sëriñ Tuubaa woolu jox ko turwa jële ko ci alxuraan bind ko wax ca lam cay wax jox ko soxna gàdd ma wax ci làmmiñam bërki démb nee na waajuram soxna moom nee na ko soxna Fat Ja ku mu bokkal sëñ bi rek nekkul sa mag waaye jur la ci ñun bëtub jur laa koy xoolee. léegi la soxna may doomi Serigne Touba soxna may Kubra wax ni soxna Bousso Ja mi nga xam ni moom la Serigne Touba doomale soxna Fat Ja te suñ borom dogal loolu ndax ku ne xam na ni soxna Fatikat suñ borom a dogal soxna Bousso Ja di doomam Serigne Touba wax ko mu doomoo ko nag. waaye soxna Bousso moom moo ñaanoon soxna Fatou Dia des fi ginnaawam ndax nee na leer na ko ni moom du njëkkee dem soxna Fatou Dia ak njabootam duñ tumuranke te njabootam mooy njabootu soxna Fatou Dia sëñ jërëjëf sëriñ Bassirou Mor ak sëriñ Mamor Pakal ak sëriñ Modou ak sëriñ nii lañ ànde woon jëmmal kër soxna Fatou Dia soxna Fatou Dia mbokkam yépp tey ñëw nañ ndax ku ne xam na ni njabootuk sëñ Ibra jaa ngi nii njabootuk sëñ Abdou Dia Dioli njabootuk soxna ja ñoom ñëpp ñoo bokk soxna Dia Touré moom Fatou Balla Sohra léegi laay dégg soxna Mayka kooku soxna Fatou Balla Soxna dugal na ko soxna Fatou Dia ba mu noonee mbokkum ñëpp dafa liggéeyal sëñ Tuubaa ba mu cër ñu ngi ñaan yàlla yàlla yokk yërmandeem yàlla taasum ci barkeem sëñ Fallou mi ñu ko tuddee euh, sëñ Fallou mi ñu duppee bis bi nag ah, kilifa gu mag muy sëriñ Baye Baye bay sëñ Baye Ndiaye mu sëñ moom sëñ Ndiaye euh, Gédé nee na ma Cheikh Mamadou Fadal bi muy nekk fii ak soxna Fatou Dia sama Baye sëñ Ndiaye Gédé nee na ma mus fukki fan ak loo xamee ni bataaxalam jógewul ci moom dem ci soxna Fadja bata bataaxalu soxna Fadja jógewul ci moom ci boppam dem ci sëñ Fallu ni ma sax dafa yéeme ni ma soxna Fadja ñëpp ko bëggoon waaye sëñ Fallu nag mu meloon ci moom yéeme na ni mu meloon sëñ Fallu yéeme na kon nag bis bi duñ ko duppaatee sëñ Fallu dafa mel ni mag ña lañ defoon xam nañ ko kon sëñ Abo ñu ngi lay tijjil di wax ni ñàkk a teew ci bisub soxna Fadja dafa wóorul waaye Serigne Khadim jërëjëf nii nga àndandoo njabootug Serigne Baara ak Serigne Mam ak Serigne Mam Mor Pakala nga xam ni liggéey ci bis bi liggéey bu am solo ak sëriñ Modou nii rek la seen waajur yu ànde woon yàlla yàgg te sax turandoo Soxna Fadja yëpp ñëw nañ ëtti kër Serigne tubaa yëpp dikk nañ ndax Soxna ja kenn lebalu ko ñëpp dañ koy fay bor fu ne dugal na fa ay nit ñu am ay sët Serigne tubaa fu ne jël na fa nit dugal fa nit tey jii njaboot gi dox ci tubaa bari na ñoo xam ne tey jii dem nañ ba samp kër dem nañ ba am Soxna Fadja tax seen waajur dem foofa lu def na ko ci lu baax ci réew mi ak ci dëkk bi Daaru Salaam gee mu nekkoon ñu bari tey doon nañ ay sëti sëñ gaawaan soxna Fat Dia tax waaye nam meloon ak sëñ Modou Mamoun lépp sëñ xaadim taarix bi ma nga jógee ci Cheikh Mamadou Fadal ndax mook sëñ Modou Mamoun a bokk benn ndey ndax soxna Dia Touré ak Buri Mbàkke mi nga xam ne mooy wajur sëñ Modou Mamoun ñoo bokk Fati Balla Soxra bokk tak Kubra ndax waxtu wi dab nañu salaamaaleykum wa rahmatullah ñu déglu sëñ Abo Mbàkke moom sëriñ Basiru Moor ñu ñuy soxna Jabaara ak soxna Maam Dieng ak ñi fi nekk Allahi rahmaani rahim wa sallallahu taala wa sallama wa baraka ala sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa xayri xadimi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu ci turu Serigne Khadim mi nga xam ne mooy xalifab soxna Fatija bintul Khadim al Kubra ak turu rakkam yi ci gannaawam yëpp Serigne Talla Maam Mor Pakala Serigne Ahmadou Bara ak Serigne Modou Serigne Habibou mbokk yi nga xam ne ci ñoom la tegoon ci seen loxo la tegoon organisation màggal gi te sëriñ Cheikh Guédé mi jiite woon ko jiite woon ko ak ñi ko àndal ñëpp ñu taxaw ci taxawaay bu rafet sëñ xaarim sax mi ngi mi ngi joxe ndigal xamal ñëpp ne la sëriñ Baara mm, defoon ci ñoom dénk leen liggéeyu màggal gi nee na ma sànq mi nga xamal bokk yëpp ne mi ngi wéyal loola tegaat na lépp ci seen loxo moom sëriñ Cheikh Guédé ak ñi ko àndal ñëpp. ñu ngi sant bu baax Serigne Bakar Abdourahmane ci waxtaan wu am solo wi gàtt na waaye mat na li mu wax ci xam-xam sëñ Fallou buñ ko buñ ko waxtaanee woon rek buñ jëloon wetuk xam-xam rek mu mu mën a ëmb waxtaan wi. ndax ni mu amee woon xam-xam masala mu ne bu koy masaan di di di di di wax day jukki rek fa mu nekk ca téere ba noonu la amee woon mokkal. ci mokkalam sër sunu waajur Serigne Bas Mor mas na maa nettali na ba muy jàng laamiyatul afaal dafa am bis mu ñëw di siyaare sëñ Fallou mu laaj ko téere bi muy jàng mu laaj ko buntu ba nee na boobu mbooloo maa ngi bari mu ngi nuyu di joxe loxo waaye ànd ak joxe loxo mi ngi ànd ak di tari di tari laa mi yoral afaal boobu nga xam ne loolu kon te boobu ba mu ko jàngee kenn xamul kañ la noonu la amee woon xam-xam li nga wax léegi ci diggante ak Cheikh Moustapha ci xam-xam am na lu ko firndeel ndax am na ay bayit yu ñu jokkalante woon booba Cheikh Moustapha da ko doon abbu téerib muxtasar Cheikh Khalil bu fekk bu mag boobu sëñ Mourou Moustapha def ñetti bayit di ko ci nuyu di ko ci tagg di ko àbb téere bi sëñ Fallou it tontu ko ñetti bayit moom it di ko di ko di ko di téere baa ngi fi danaa la ko jox ci ci xol bu sedd guyu sëñ Mourou Moustapha def ne fa minni salaamun tayyibun yuxjilul atara xalilan habiban baarian yuxjilul badara wa mujibuhu anni la yal aana xaajatun bi nassi xalilin kainin indahu zuhra أعرني أنظر فيه شيئا إن أمكنت قليلا وإلا فاقتراضي مع البشرى sëñ Fallou ne ko أرد سلاما كاملا يخجل البدر على القرم نجل القرم أكرم به بحرا جوابكم هذا الذي رمته هنا بلا كلفة منا ولا منكم دهرا فعني جزاك الله خير جزائه أيا مصطفى من فاق حسنا كذا قدرا kon loolu wane na ne ñoom nit yi nit yi xam-xam lañu woon kon ñu ngi lay sant bu baax ci ci ci waxtaan wi. soxna Faati nag ak sëriñ Fallou dañoo bari luñ nuróole xëy na boo ci ci miñ demee ci sëñ Touba boo gisoon koo xam ne xamul leen ñoom ñaar nga bëgg leen koo jàngal jàngal ko ñoom ñaar mën nga koo jàngal rek kenn ki. bu fekkee soxna Faati nga ko jàngal boo ko jàngalee ba xam ko man nga ne ko sëñ Fallou mi ngay dégg nag mooy soxna Faati mu góor. bu fekkee sëñ fàllu nga ko jàngal it boo noppee mën nga ne ko soxna fat mi ngay dégg mooy sëñ fàllu mu jigéen noonu lañ demee lañ njëkk nuróole mooy noo ñoo nuróo nuñu demee ci sëñ Tuubaa nuñ ci bokkee sëñ fàllu soxna Awa Bousso mi ko jur doomi nijaayi sëriñ bi la sëñ Bousso bee ko jur bokk ak soxna jaara lépp soxna fat ja it soxna rek mi ko jur doomi bàjjene sëriñ bi la soxna faati bal laa ko jur mook maamaronta sëriñ ñoo bokk bàyyi kon ko na ci ñoom ñaar bu sëñ Tuubaa du loon sa baay di sa nijaay loolu ñoo ko nuróole waaye ñoo nuróole pësteef itam pësteef na Fati am na kilifa gu ma ne kenn ci waa barsax yi magi sëñ Tuubaa yi nettali na ko ne ko déen wan de ñoom sax dañ ko daa roy ci taalibe bi nee na ko ñun ku ci sëñ bi masaan woo da ngay ñëw ba agsi soo ko ak suuf moom nag foo agsee ci bunt bi rek tàmbalee ram moom la nga ci taalibe bi ba ci ba ci digganteem ak doomi sëñ Tuubaa yi sëñ Tuubaa rek la woon xool ci ñoom ne sëñ Saaliw doo ña ngi doon wax léegi sëñ Saaliw Tuuram mu Cees moo ma ko nettali nee na ci njaarim la soxna faat yi daa taxaw daa ñëw kër soxna Faati ci njaarim bi oto bi demee soxna Faati génn laaj fu mu taxawoon ñu tegtal ko mu dem àgg suuf fa fa ruuya taxawoon mu tibb ci suuf si diraayam sëñ Saliou Touré nee na ma loolu ci kanamam la daañ ko nettali ñu bari ci doomi sëñ Tuubaa yi mu defal loolu wax na loolu da koo defal ñu bari ndax pas-pasam la woon waaye ñoom it dañ koo delloo woon cër boobu dañoo dañu ko jàppe woon gis nga sëñ Moussa tënk na ko ci bayit ne buñ ko defee buñ ko gisee def ko na seen maam jaara xam ne bu doon góor ëpp leen ni dara noonu lañ fonke woon sëñ sëñ waaye soo soxna Faati noonu mu defoon sëñ Fallou itam sëñ Fallou noonu la ko noonu la ko jàppe woon ci positif sëñ Xaadim li mu wax léegi ci ci ndogu loolu am na boo xam ne café mel na mbëggum taale bi nee na na ku ñu wax sëñ bàcc mbàkki moo ko natti di doomi sëñ bàcc Sadou ci ñi nekkoon ak sëñ Fall la bokk nee na soxna Faati da koy yónnee kafe fekk sañ sëñ lu jëm dindi mu ne ko dencal ma ko ba ma ñëw ba mu demee dindi nag am fay fan ba mu dulsee xam nga ñam bu yàggee dana soppi ko dana bari lu ca juddoo lu ca dëkkut nee na waaye def ko ne ànd na sama café ka mu andil ko ko mu ne ko wutal ay xal teg ko ci te bu ko ubbi nag bàyyil ba mu bax ba tuuru nee na muy bax ba ya ca juddu woon yëpp dañ ba jeex tàkk mu ne ko indi xel li naan ndax kafeeg faat Fatima mu xalaata ko tuur kon noonu la soo sëñ lu moom it waaye sëñ Fallou moom it noonu la meloon ci pasteur ci sëñ Touba gis nga bayit bayit yu yéeme yooyu mu waxoon xob bii lahu dëhra qad afna dumuaya id id xob bi jami al wara la shakk insani ne ma jooy yi may jooy ngir bëgg sëñ Touba jeexal na sama rongoñ bëgg ma bëgg sëñ Touba sax fàttale na ma mënatuma bëgg keneen sëñ Fallu wax na ko dem na ba àgg ci ne saf ko dumuuxi li xubbil xadimi fardan ara nee na sotti say rango ngir bëgg sëñ Tuubaa man farata laa ko jàppe sëñ Fallu noonu la gisee kon nag sëñ lu moom dafee naa sunu borom faye na ko ndax xar baax yu bari yi nekkoon ci moom damaa ci nettali benn rek tëje ko ku ñu wax sëriñ daam daraame dégg naa mu nettali ko xay na du ñàkk ñeneen ñu ko dégg lu yéemi la mu ne gouverneur général bi fi nekkoon 1956 bi mu demee daf na day ñëw tàggu si Serigne Fallou du ko téléphoné du ko yónnee ndaw day ñëw tàggu si ko foofu it da nga fi xamee ni Serigne Fallou tolloon ci réew mi. nee na sëñ Fallou moom la yónni moom sëñ Dame Dara mu jëndale ko ab bic ca Ndakaaru nee na juróom benn junni la ko jënde ngir jox ko cadeau tubaab bi bu ko bu ko bu ko tàggusee foofa it nga nga nga dégg fii ne sëñ Fallou ko amoon diplomatie la mooy kenn ku ne nga xam na ngay jëflante ak moom. nee na bi tubaab bi ñëwee gouverneur général bi sëñ Fallou berndeel ko ba muy war a tàggoo nee na mu jox ko bic bi. tegal ko ca ne ko loo bëgg a dooni bind ko ci big bi loo bëgg a dooni nee na napp yu weex yi ñu ko laaloon la jël nee na bi mu ko waxee sax ree jàpp nee na ko man mënatuma doon ndax jeexal naa waaye ci kaw maslaa rek mu bind ñaari poste ministre ak ambassadeur nee na yooyu la bind nee na waaye ba mu ko biddee taxul mu am ci yaakaar nee na ko loolu xam naa du ko doon nee waaye ba mu demee 1956 1957 jël pouvoir bi ca France diir bu gàtt mu nommé ko ministre moom tubaab bi nga xam ne territoire France bépp moo ko jiite ñeenti gouverneur général yi yi France am sax moo leen jiite foofa nee na teg ca diir bu gàtt mu nommé ko ambassadeur u Argentine loolu kon defe naa xar baax yi sëñ Fallou defe naa yëmul ci Sénégal yëmul ci Murid waaye tubaab yi sax xam nañu xar baax yi sëñ Fallou kon nag ñoo ngi naan ci xar baaxam yooyu nga xam ne léppam xar baax léppam kiimaan la ñoo ngi ñaan ci barkeem ak xar baaxam yooyu ñëpp bu ñuy jóg jógaa leen jégal wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala xam naa ne kon dañuy daal di ñaan rek boo ko defee sëñ Ahmadou Badiou ñaan ñu daal di yeewi jataay bi